ndigalul sëriñ muntaxa mbàkke xalif général des mourides kilifteefu sëriñ abdourahim diop xalif cheikh masamba diop sam ci njiitul sëriñ mudu sàmb jëwriñu daaray këneen njobb waa tuubaa këneen njobb di leen yëgal bisub alxuraanul karim ba ñu baaxoo at mu jot ca daara ja ngir suqali ko ak saytu ko ak yaatal ko ak mbaar mu ñu mën di jàngalee ndox ma ak courant ba seenum paj seenum kodd ak seenum dund bisub jaayante boobu nag jàpp nañu ko samedi di fan ci weeru décembre 2023 ca tuubaa këneen ko yëgal ku mas a jaar ca daara ja mbaa am doom ju a jaar ca daara ja mbaa soppee alquranul karim mbaa nga bëgg a jaayant ngir liggéeyal yàlla ci alquranul karim sëriñ abibu kan chef de village keneen jobb sëriñ moustapha kan président daairatu silatu rahim sëriñ abdou xaadir sàmb xalifa askanu cambeen sëriñ abdou wahab sàmb xalifa seex ma kumba sàmb sëriñ moodu kan parcelle jëwriñam dong bu mas a jaar ci daaray touba keneen monsieur asan fall maire de keneen jobb conseiller ak chef de village yi wër keneen jobb sëriñ mor gueye karim bu ràññiku lool te bëggoon seex ahmadou bamba mbàkke xaadim rasool bindal na ko fukki kaamil ak juróom-ñett yal na ko san borom dolli ay ngërëm ak ba sun borom dogalee mu wàcc ab liggéey doomam sëriñ Moussa Samb moo taxawu daara ja ànd ko ak waa keneen njobb yal na ko san borom dolli ay ngërëm ak leer bi sun borom dogalee mu wàcc ab liggéey sëriñ Modou Samb taxawu daara ja ànd ko ak waa keneen njobb yal na san borom yokk aw fanam ak wéram ba yooyee yokku néeg ya def ca wanag ya collecteur kon yokk ndox ma ak courant ba yëwénal dund ma ak paj ma ak kodd ma ñu ngi ci tàllal loxoom julli ji ak taalibe yi soxna yooyu jiite ay mbootaay ci keneen njobb daayira ci keneen njobb association ci keneen njobb ko fekk baax keneen njobb góor ak jigéen mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew nanu jaayante wut ci daara ji aw yiw ku liggéeyal Qur'an sa mbir dana jëm kaw daara ak jàkk ak jumaa la ca jekk miiri xaalis or ak jamaa ya di tàkk bëgg nañ xeer feer ak ciment karo peinture wala xaalis payuk maçon ki menee bar ku ca jëf yàlla na gudd fan mu ci am yàlla aar ko ci ay lor. suñu seen YouTube Sàmm Xasida TV. ci xasida yi rek bépp vidéo bi dugal ngeen mën koo jot. Sàmm Xasida TV ci xasida yi rek. seen ku mën a bégale. ci Sàmm Xasida TV ci xasida yi